yàlla kenn ci boroom xamxam xam Medina yi kenn ci doomu Medina yi kenn ci doomu xut bu mag di Thierno Hassane Dème radiyallahu anhu Tukulóor Baay ki ñuy dala tey seen émission yóbbalu Taïba mooy Cheikh Mouhamed Taha ibn Thierno Hassane Dème radiyallahu anhu mu war ñu waxtaanal lenn ci solos gàmmuk ba mboolem bokk taalibe yi fu ñu mënti nekk ci àddina bi di ko teewlu ak seen yitte yi ñu war a def pour dem xenc ji di xew Taïba sëriñ ñu ngi lay nuyu di la Tine Sall di la ndokkeel bu baax di la ñaanal yàlla di gërëm tamit sa yëngatu yu barke yi nga xam ne am ko yëngatu ci Fadilou di tasaare xam-xam di tasaare bu baax te loolu liggéey bu rëy rëy ndax toll ci jamono joo xam ne avlema ci lañ nekk mondialisation tey ñëpp mën nañoo ah, xam lépp luy xew ci àddina bi ci diir bu gàtt kon lii ngay liggéey nii di tasaare lépp loo xam ne mi nga xew ci biir bi ñi nga xam ne dañoo sori pay bi ci zahir di ko gis ndog loolu loolu liggéey bu rëy la liggéey bu mag la ñu ngi la ci sant bu baax di la gërëm di nuyu képp koo xam ne nag mi ngi seetaan chaîne bi nga xam ne mooy Barham Universel Media di tamit chaîne boo xam ne léppam njëriñ la yal na yàlla barkeel ko ak yàlla yokk ko ci zahir ak ci baatin di gërëm nag képp kuy seetaani émission bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee yóbbalu Taïba Niassène seen na ku ko tudd rek tudd Cheikh Ibrahim Niass radiallahu taala bu képp ku ko tudd rek fàttali ku tudd boobu nga xam ne dafa ñëw pour xettali doomu aadama dafa ñëw pour jël doomu aadama xamal ko boppam xamal ko lu tax yàlla bind ko mooy mu jaamu ko yàlla wax ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yëpp borom xam-xam yëpp wax ne lum ci nangu mooy mu xam ki mënta jaamu lu mu xamut Cheikh Ibrahima Niass moomu nag radiyallahu taala anhu mi ngi juddoo tey ko ci mille neuf cent ci weeru rajab tey ba nekk dëkk boo xam ne xëy dëkk bu ndaw la boo xamante ne ni bu fay Cheikh Ibrahima si juddu lu mu rëy rëy rëy munoo wax ne ñaar fukki kër mu fa waaye góor googu juddoo woon foofu noonu ci àll bu sori boobu noonu tey jii nii amul fenn fooy dem ci àddina bi lu dul ne xam nañ ko lu dul ne dem fekk ay nit yoo xam ne ñu koy nooyee di ko roy di ko bëgg di ko bëggee di ko jéem a delloo njukkal ci teraanga bi nga xam ne defal na ndax Cheikh Ibrahim Niass dafa nekk jëmm yërmaane dafa nekk kado boo xam ne yàlla moo ko may ñu def yëpp mu nekk teraanga boo xam ne nag kenn mënu ko nattale waaye kenn xamut dégg nga maam dayoo teraanga boobu noonu sax bu mën ko fay moo tax foo toll rek yaa ngi dégg taalibe yi ci anam bu nekk ñu ngi wax jërëjëf Baye Niass jërëjëf loolu wax la doo xam ne moom ci boppam daf ko waxoon ne euh, ne mi ngi wax ci ay woyam ba tudd ne li nga xam ne moom la bëgg mooy doomi aadama yëpp jot seen càkkuteef ba nga xamante ne nii sax dégg nga deneen daneen sant li nga xamante ne nii moom moom mooy moom mooy jëfam dama teelu baytu ba baytu mi ngi jeexee wa yahmaduna saa yi maanaam ñuy sant sama jëf moom doomu aadama yi wax na ba tey feneen ne wal ummatu qasdi fihim an asuqahum ila hadratil barri rahimi ilaahina xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sama bëgg-bëgg ci ñoom mooy mu leen ñoom ñëpp yóbbu leen ci pays yàlla kenn la ku la woon sa borom nag dëgg dëgg kooku naxul la kooku jëriñ na la kooku jëriñ na la jëriñ boo xamante ne nii boo nekkoon jaamu di ko jaamu sax loolu ku tax nga mën koo fay kon Cheikh Ibrahim Niass mooy ki nga xam ne mooy yarekat bi nga xam ne wàllu yàlla yu mag yëpp moom lañ doon wër moom lañ doon dund ci seen wax yi Cheikh Tidiane junj na ko yabruzu rajulun min at-taifati laa yu'rafu fi dunya wala fil axira dana am góor goo xam ne dana feeñ ci kuréel gii di tariqa tijaaniya waaye duñ ko xam fii ci àddina duñ ko xam fee ca àllaaxira kon kooku nag bu ñuy fàttali ko juddoom di ci waxtaanee yóbbul bu ñuy yóbbu ci juddoom loolu lu am solo war nañoo jàngataat dundam ndaxte roy ko moo ñu war te mënuñ koo roy te xamuñ ko te wala ko te pour ñu bëgg ko ba mun koo roy il faut ñu xam ko koo xam ne la ñun ñëpp juddoo noonu la juddoo ndey gu jigéen fii maam Astou Diankha nekkoon jigéen comme jigéen ñëpp ay baax lool sell lool nangaloon jëkkëram lool ëmb ko juróom-ñeenti weer jur ko fii nit ñi juree ñëpp ci diggante ndey ak mu judd nag eh, ànd ak may yàlla gu rëy rëy rëy waaw ndax tamit koo xam ne la waaris Mahamadi la ñu pare la ci ndey ak ci baay ak ci environnement bi nga xam ne sax foofu la yaroo mu yaru yaru diine yaru lislaam mokkal alquran ci at yu néew wax sax dañuy nettali ne bàyyi ko ñu mokkal alquran moom kenn xamul kañ la dañuy wax ne Cheikh Omar Faye bu Banjul bu ñëwaan ci daara maam El Hadj Abdoulaye di laaj xale yi jàng fu ñu toll kenn ku ne boo waxee foo toll bu may la xaalis bu ñëwee ba ci bàyyi ñëpp dañ naan kii moom <laughs> ba mokkalee kenn xamul kañ la waaw Cheikh Ibrahim Niass noonu la yaroo nekk koo xam ne it dégg yaru ci baayam jàngee ci baayam lépp lum mu jàng ba muy am ñaar fukki at ak lu tuuti baayam génne àddina gannaaw baayam kenn jàngul lépp lu mu xam moo góorgóorlu ci itteem li maam ba xam ko tey jii nii yàlla teg ci loxoom li nga xam ne mooy leeru fayda tijaan yi fayda bi nga xam ne Cheikh Tidiane bégaloon na tariqa bi ne dana ñëw ci mu jóg jamono li taati faydatun ala ashaabi xata yadxula annaasu fi tariqatina afwaajan afwaajan wa taati hadihi alfayda wannaasu fi gaayati ma yakunuuna alayhi min addiqi wa shidda faydu dana ñëw bu ñëwee nag mbooloo bu bëri danañ dugg ci tariqa bi ay kuréel kuréel kuréel kuréel ñu bëri ci wuli yàlla yu mag yi di ay xalifa Cheikh Tidiane woote woon leen faydu bi waaye dëgg-dëgg faydu bi dëggantaan ci loxo Cheikh Ibrahima Niass rek ci la feeñ moo tax bàyyi mi ngi dot ci ay teranga depuis mille neuf cent ba léegi dégg nga teranga faydu boobu noonu ñu ngi tàllalu dégg nga te képp koo xam ne nandal na la da nga màndi ba mën a nandale kooku màndi mu mën a nandale kooku màndi am na ñoo xam ne seen diggante Baye sax mat na juróomi silsile wala juróom benn nit wala juróom ñaari nit te dégg nga la bàyyi xamal ku njëkk ka ñoom ñu koy xam kon loolu dëgg dëgg mooy la mu doon wax ne wa ashkuru rabbi laysa sirri aqira fa asraru atbaa'i muy def fa maa ngi sant yàlla sama mboot jërmeelu ku gën a tuuti ci sama taalibe yi sax am na fanaawu ci yàlla kon loolu dëgg dëgg sant yàlla la war nañ nag ñun taalibe yi waxtu wu nekk suñuy làmmiñ ak suñuy xaal ak suñuy awqaat yëpp di wax jërëjëf Baye Niass képp koo xam ne dog na kiraay yu nekk sa diggante ak sa borom ba nga mën a wax man maay yàlla mooy yonent ko maay Cheikh Tidiane maay bàyyi dëgg-dëgg kooku amul dara loo xam ne mu ko fayee lu dut dégg nga nekk lim bëggee taalibeem mel ko nga mel ko di continuer liggéeyam nekk xalifa kenn ku nekk ci taalibe yi war naa nekk dëgg-dëgg xalifa Baye ci gox bi nga xam ne fa la nekk ci wane li nga xam ne mooy njàngale Baye wane li nga xam ne mooy melokaanu Baye wane li nga xam ne moom la Baye nandal taalibe yépp mu mel noonu loolu nag dana jëfe nit àgg ci te itteewoo mbirum Cheikh Ibrahim Niass tamit doy teew nga xam ne mooy marke bu sirri wala doo teew fële ca Taïba nga xam ne fa la dégg nga Cheikh Ibrahima Niass àddina wala ko si barab yooyu yëpp dañoo war di ko ziyaare di fa dem waxtu bu nekk di fàttaliku góor yooyu nga xamante ne ni ñoo ñoo bongee foofu tey tasaare njub gi ci mboolem àddina tey ba ñëpp jot ci dëgg-dëgg yóbbulu tey ba du woon lu dut góorgóorlu bu baax a baax jàngataat dundu góor googu nga xam ne mi ngi juddoo fii Taïba waaye mi ngi gaañoo fële ca London dem na fële ci àddina bi tasaare na njub tasaare na diina lislaam tasaare na tariqa tijaan yi tasaare na xam-xam dékkil na sunna yonent bi sallallahu alayhi fóode yi nga xam ne gag neen ci jamonoom ci message yu bari gàggante na leen gàggante yi bëgg na rafet yar na ay borom xam-xam yoo xam ne dimbale neen lislaam dimbale neen tariqa bi dimbale neen Euh, àddina lépp ci njub ci mbaax ci bëggante ci fonkante ci euh, taxawal mbaax ak samp mbaax ak nekk xalifa yàlla ci kaw suuf kon dañ góorgóorlu ñun ñi nga xam ne ñu ngi oote taalibe leen ñu melloo melokaanu taalibe taalibe nag mooy koo xamante ne ni dafay bëgg lu sëriñam bëgg taalibe mooy koo xam ne dafay góorgóorlu ba fu mu nee sëriñam ñu koy tibbalee foofu ñu taalibe mooy koo xam ne dafay góorgóorlu ba li nga xam ne bàyyi moom la bëgg mu mel mu mel ndax bàyyi wax na leen nekk sama taalibe loolu lu jafe la waaw nekk sama taalibe loolu nekkul loo xam ne lu yomb la nekk ku ko bëgg rek am ko loolu mayu yàlla la teraanga la boo xam ne yàlla moo koy may su ko soob waaye taalibe bi nag su demee ba am maarifa ci billaay dafa war a góorgóorlu bu baax nag dégg nga dafa war a góorgóorlu bu baax dox seeroom di góorgóorlu di yéeg ci maqaama yi dégg nga ba keroog muy dondu maqaama góor yàlla yooyu nga xam ne moom la Cheikh Ibrahim Niass yaroon boppam daal gërëm wax ne Madina gii nga xamante ne nii fii lay yare góor ñi fii xaari jàllum zawfuhum kay xaatimi am na ay góor yoo xam ne seen xam-xam ci yàlla mu ngi mel ni Ibn Arabi li xaatimi boo demee Seydi Ali Cissé boo demee Cheikh euh, Omar Touré boo demee Cheikh Aboubacar Serigne Bay Niass boo demee Hadj Mouhamad Zeynab boo demee Serigne Ousmane Ndiaye boo demee Thierno Hassane Deme demit demit demit demit da ngay gis ne ñoom ñëpp kenn ku nekk rek dégg nga xutba la boo xam ne mën naa leeral jamono te ñooñu ñëpp ñu ngi dumoo ci jant boobu nga xam ne mooy chamsul shumusi mooy rasul ruusi muy taajul ruusi muy imaamul aarifina wa siddiqina wal aqtaabil mutamakkinina Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu taala anhu kon lu ñuy dénkaane ci bés bi nag mooy ñun ñëpp nañ jàngataat dundu Cheikh Ibrahim Niass naka la buggee woon alquran ba jaral ko lu nekk koo xamante ne nii dundam amul dara lu vide waaye da gis ne lu mu xat xat xat bi nga xam ne moom lay jàng dana ko jàng suba bi bu guddee balaa moo tëdd dana ko tariwaat ci mokkal tere woon ne dana teewee julli juróom lépp ci jumaa ji ak wasifa dana laazim awraat yi mu war a def yëpp dana ko def dana jàngale tafsir dana tax taxawu jaamu yàlla yi ci seen soxla yi dana tukki tasaare diine dana tukki jubal jaamu yàlla yi dëgg-dëgg baax ci ay mbokk lool baax ba baax ci ay noonu di jëriñ jëriñ waxtu bu nekk mos sabor kenn jullit xàqan la keroog bañ ko tëralee tëralaay bu mujj Seydou Aliou Cissé ba mu koy seede daf ne sëriñ bi daal lu mën a wax ci moom mooy jullit xàqan wax ju yomb la ci am waaye nekk ko du loo xamante ne lu yomb la dafa laaj liggéey dafa laaj euh, tarbiya dëgg-dëgg ndax bi wax na ne laa yuminu ahadukum xata yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsihi kenn ci yéen ngëm yàllam du mat fekk li nga bëggal sa bopp bëgg ko sa morom naka noonu wax na ne al muslimu man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi jullit daal mooy koo xam ne jullit yëpp mucc neen ci xay yi làmminam waaye mucc neen tamit ci xay yi loxoom beneen borom xam-xam mooy imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé danay wax ne kon yu déggee ci ne jullit war naa góorgóorlu ba jëriñ jaamu yàlla yi ci loxoom jëriñ jaamu yi ci làmminam waaye beneen borom xam-xam tamit mi ngi wax ne jullit war naa fexe ba du def xay boo xam ne yéeféer yi buñ ko gisee dinañ ci xeeb jullit ñi kon su boobaa lor na jullit ci làmminam su waxee wax joo xam ne yéeféer yeeg noonu lislaam yi dinañ ci xeebee lislaam ak jullit ñi kon tamit lor na jullit ñi ci làmminam kon dëgg dëgg Cheikh Ibrahima Niass booy seet jullit xaqan danga koy jàng dundam da fekk mu nekk jullit boo xamante ne nii dégg nga ku fonkoon julli la fonk fonk islaam ak jaamu yàlla yi la loolu na wax ne maa ngi xool doomu aadama bët xam ne jomb na ni di ko xoolee doomu ko bañ waxtu bi gàtt na Cheikh Ibrahima Niass géej boo xamante ne nii amul tefes booy wax ci moom doo am foo commencé doo am fooy dal <laughs> da wax rek li nga mën a wax keneen wax lu mën a wax comme lu Cheikh Xaani waxoon laysa maa qad yuqaalu fiihi ba mawlud alladi laa yuqaalu laysa yuqaalu waaye moom loo wax ci moom rek doyut moo dajal waaye liñ mënta wax loolu kenn mënu ko wax léegi gërëm di sant asalaamaaleykum wa rahmatullah